waaw euh, maa ngi doon déglu léegi avec beaucoup d'intérêt maître Tine euh, que je félicite et que je salue au passage. Euh, mm. pour avoir au moins eu le courage de challenger le système de parrainage. Mm. en allant introduire un recours. Mm-hmm. au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Mm-hmm. xam nga ñun suñu réew yi. Euh, du ñu dem très souvent en contentieux pour challenger le système. électoral. et c'est extrêmement important. xam nga élection ñetti mbir ñoo ko tënk la transparence la confiance et le consensus. Mhm. boo xoolee ni mbiru parenage bi tëddee ba fi ñuy waxee nii mooy que ni ce système n'est pas parfait. c'est c'est un système qui est très imparfait. Mhm. te yaakaar naa mënoon nañu profité ci fenêtre bi nga xamante ni la cour de justice la CEDEAO joxoon na ko état du Sénégal. Mhm. en statuant sur le recours. introduit par maître euh, Tine entre autres pour ñu dëggaat suñu système de parrainage mais ba fi ñuy waxee nii on a l'impression que les mêmes problèmes vont se poser à nouveau ouais. premier problème bi mooy euh, le bi nga xamante ni moo war a saytu parrainage yi fële ca au niveau du conseil constitutionnel même si mettre na en place une commission buy saytu wàllu parrainage yi et que les mën nañ fa am seen ay représentant et xëy na tamit am na ay euh, personnalités indépendantes yu ñu fay copté plus maintenant quelques acteurs de la société civile mais boo xoolee 2019 les cinq acteurs de la société civile yi ñu yóbbu woon foofu pour ñu euh, joxe une caution logi légitimatrice à ce processus euh, bi ñu génnee li ñu wax mooy xamuñu logiciel bi fan lañ ko paramétrer kan moo ko paramétrer ak ñi ko paramétrer yan accointance la nu am avec le régime en place donc puisque mënuñu am toutes les garanties nécessaires ñu cautionner la fiabilité du processus et boo xoolee ba fi ñuy waxee nii on n'a pas eu des réponses sur ces questions techniques premier élément le deuxième élément ci pose problème amoon na avis ci ci parenage bi mooy que ni consensus bi nga xamante mooy la triptique bi ma joxee léegi consensus amu ci xam nga indi na nañu nee nañu am na dialogue politique bu am. voilà foofu laa bëggoon euh, ñëw sax parce que seen dialogue bi. c'était mhm. pour acter mhm. le consensus. ñi ña dem ña ca demul moom nee nañ ñoom ñëw bëggut a ñëw mais ña ñëw jàpp nañ ñi ñoom déggoo nañ seen biir. waaw xaw ma 0 virgule 8 jëlee ko 0 virgule 8 yóbbu ko 0 virgule 6. de 0 virgule 6 alors que fichier bi yokku na donc euh, ça revient au même. waaw xam nga consensus boobu noonu man sama thèse de doctorat maa ngi ko def ci la construction du consensus dans le processus de consolidation démocratique okay. consensus amul ci euh, système de parrainage wala voilà, bu consensus amee c'est un consensus très mou parce que consensus euh, bokkul euh, ak consensualisme consensus boo koy construire da nga koy construire avec l'ensemble des acteurs wala l'ensemble des parties prenantes yi nga xamante ni ñoo ŋànk wàllu processus électoral bi mm. benn frange bu am solo ci euh, opposition bi participer wuñ ci nga ne am nga consensus de quel consensus parle-t-on ça c'est le premier élément balaa ngay dem di tëgg ay consensus day soxla nga épuiser d'abord toutes les critiques qui ont été formulées et que Cour de justice de la de la CEDEAO revenir ci yow épuisé woo loolu nga indi ay yeneen yu bees te fekk y a déjà un passif boo xamante ni épuisé woo ko donc je crois que ce consensus sur le parrainage c'est un consensus très mou et qui va nous rattraper ci euh, fii léegi mois de décembre. Mmh. te pour éviter loolu je crois qu'on avait largement le temps toog waxtaanee suñu système de parrainage parce que je crois que sur le principe même Maître Tine euh, ñàkkul bañ a d'accord sur le principe du parrainage parce que parrainage yàgg na fi mais le problème qui se pose c'est que ni ñu ko tëggee parrainage bi. Mmh. Euh, indi na ay catastrophe 2019 te bu ñu deful nank même. conséquence yi la ñuy amaat pour deux mille vingt quatre te yaakaar naa on avait largement le temps ñu xoolaat suñu système de parrainage même si am na ay coppite yu ñu ci indi mais ba tey li nga xamante ni mooy aali kalat gi di ay di jàmbat mooy ñiy contrôler le système de parrainage. Hmm. c'est on a privilégié une approche technocratique au détriment d'une approche de légitimation et bu fekkee conseil constitutionnel la. boo bëggee dépouiller les les juges constitutionnels ci seen ay prérogatives en tant que juge ultime du processus électoral notamment pour l'élection présidentielle jël ay technocrates teg fa même boo une commission teg fa dana wàññi euh, poids bi technocrates am mais ba tey ay suspicions sur comment on a paramétré le logiciel qui va contrôler. Et là c'est la question de confiance qui va revenir parce que les acteurs ne se font pas confiance entre eux. Mmh. et les acteurs donc confiance c'est de manière verticale mais aussi de manière horizontale ñaari conf ñaari confiance yooyu yëpp benn amu ci mhm. parce que les acteurs se regardent en chien de faïence mhm. wóolante wuñu majorité ak opposition wóolante wuñu ci système de parrainage bi ba pare amuñu confiance les acteurs n'ont pas confiance au système oui parce que confiance bi nan lay amee